nag comme d'habitude rek xam nga ni nijaay moom mhm. du fi nekk ñuy ubbee benn rubrique ndax dafay faral euh, di baax ñuy am ñu mel ni moom suñu wet ndax ñuy fàttali li nga xamante ne moo di les bonnes manières mooy mœurs yi nga xamante ne moom la suñu maam yi bàyyi woon mhm. te ñu war à chaque fois ñu koy euh, fàttali alors si c'est bon de l'autre côté ñu jëli jingalu nijaay daal dellu ci plateau waaw Aïcha. <laughs> baax baax euh, mab bu élément bi euh, pare euh, tey dañoo nar dem delluwaat ci néegu sëy yi ndax parfois ñu mayee xale bu jigéen ci ci may ko kum bëggul mhm. papa ja lam cay def moom mooy may naa sama doom yaay ja la muy def moom mooy danoon ñaan yàlla doomam mucc ci xew ci jamono ba mu muur ko yóbbu ko mais xale bu jigéen bi parfois mu dund loo xam ne ci néegu sëy euh, parce que dañuy wax ni néeg euh, dara xatul waaye tëdd koo bëggul xat na euh, lu néeg yaatu yaatu yaat lu lal yaatu yaatu yaatu yaat lu tëdd koo bëggul moom ala kulli alin day xat parfois nag conséquences yi nga xam ne moom la xaseen doom yi di dund mhm. ci sëy ba dañuy dem sax ba bokkaale di bàkkaar ci façon bi nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy moom la ñuy sëy parfois nga ni nga gis jigéen ñu naan jongewul fekk joŋe na de maanaam jongeem da koo denc ngir ki mu bëgg mm-hmm. mais mais du ko jox koo xam ni bëggu ko xale bu jigéen la boo xam ni dafa sëy ak euh, dañ ko koo may euh, biñ ko mayee euh, waa ji moom moom bëgg ko du ko loolu ñuy def jigéen di def bala moo tëdd ci wàllu jonge mm-hmm. solo parfum wu nee na du ko defal jëkkëram parce que bëgg ko nee na jëkkër ji ci boppam tamit jàpp na ni moom li ko dal moom it moom la dal mooy parents yi ñoo ko wax ni nga xam ni rek mooy tase leen ngeen bëggante tase ñu maye leen ba nga xam ne conséquence yi say am euh, luy mett la ndaw si am na lu ñu nettali ñu déglu ko euh, bu ci maam ba pare. damaa nekkoon ak sama borom kër doon sëy ak moom. waaw. waaw sëy ma nekkee sama bàjjen ma am kenn ku ma ñu génnal. Mhm. di génn naa moom lu man ñetti at. waaw. léegi mu jël na ba ma xamee ne foofu mu ngi dikk di ma ñaan si. mu daal profité gaaw jël ma may ma doomam te man bëgguma ko forcé ma may ma doomam maa ngi nekk ak moom ma sëy moom mais man leer na ma xam naa ne man bëgguma ko te bëgguma nekk sëy bi tamit def loo xam ne si neexul yàlla ndax man yarewuñ ma ko ak ki may may man bëgguma mm-hmm. ko bi nga xam ne si liñ may maye laa ko yëg ñu ma yëg may ay onze heures boobaag léegi nag maa ngi ci man na deux ans mais sama xel dafa nekk génn ci sëy bi ndax man wax dëgg yàlla dugal na métti bëgguma ko te bëgguma see nekk sëy bi def ne wax dëgg yàlla ñaata at nga am ci sëy bi man am naa ci deux ans am nga ci doom wala amoo ci doom déedéet amaguma ci doom man maa ngi ci instant bi ci doom xanaa doo leen def ay rapport mais bëriwul ndax moom Dakar la nekk te liñ fi liñ fi ñëw bëriwul. Mm-hmm. ba pare moom bi nga xamante ni may nañ ma ko di jébbal ma ko ci deuxième jour bi xam nga lu ma wax ci guddi gi ma ne man bëggagul ma am doom léegi. mu ne bëggul am doom. waaw man bëggagul am doom léegi. lu tax mu wax la loolu. ma yaa ma moo tax ma jàpp ne man mii li ma dal ci moom moom tamit damaa yaakaar loolu moo ko dal ci moom. wax nga dëgg nekk affaire boo xam ne si ma jaaxal la wax dëgg yàlla. bu ñëwee est-ce que maanaam bu ñëwee est-ce que di ngeen jotee. am ay problème nii. déedéet maanaam di ngeen def ay rapport di ngeen sëy. dinañ sëy bi man dama si nekk sama bopp damay nekk ak damay man nekk ma sax ak kan moo ciy wut moroomam moo lay wut wala wala yaa koy wut. moom moom lay wut te bu te bu ñu sëyee ak man damay xam ne kii amul ma ci man. daf sa forcé di day sëy man sëy bu metti ma dama jéeg mu baani mi. ndax moom bu bu. jigéen yoo xam ne si nii dañuy seqal seen borom kër di xalaat seen benn tool bañ doon génn. Mhm. loolu daf may thème boobu ma koy sànni yàlla xam ne dafa mel ne ma di waxal billaah. jéem a sàmba euh, euh, xale bu jigéen bi euh, gis nga yar xale yar xale njariñ gam lay amal ci biir kër ga ci wàllu xam nga nit bu yaayam boo bu fa yaayam nekkul baayam nekku fi xëy na bàjjanam a ko yar xëy na tàntaam ko yar xëy na maamam xëy na xëy na xëy na ñooñu yar la dafa am loo xam ni li nga sañ a def ci sa kanamu ndey ak sa kanamu baay ak bànneex yi nga sañ a def ci sa kanamu ndey ak sa kanam ak noflaay ga nga fa war a bu la nit yaree doo ko doo ko def mooy bu la waxee fubeereel bala moo ñëw day da ngay fubeeree bu la waxee raxasal nga raxas am na yoo xam ne da ngay bañ sax mu mere la ba da nga koy def ngir dab bànneexam parfois jigéen ñi dañuy gis jàmbaaru xale bu jigéen boobu ñu ne xale bu jigéen bi du génn kër gi nañ ko may sama doom mais est-ce que bëgg na sa doom mm. yow yaa ngi xool sa intérêt mooy li may liggéeyal bu fi jógee keneen dootuma ko liggéeyal kon naa ko may sama doom mais est-ce que bëgg na sa doom ñaareel mooy est-ce que sa doom sax yow bëgg bëgg bëgg bëgg na ko beneen bi moom mooy nga jël xale bu jigéen dafa am parents yoo xam ne dafa mel ni euh, sañ-sañ dañuy fayee seen doom yi bor mel ni dañoo amay kóllëre goo xam ne dañ koy fayee seen doom yi mooy papa pa diw daal man ak moom amante nañu kóllëre goo xam ni sama sañu maa doomam ñëw ñaan ci ci kër gi te duma ko ko may su boobaa damay mel ni ku manqué kilifteef ci sama biir kër léegi mottali yow sa kilifteef ak jaay sañ-sañ sa biir kër tax na nga jël sa doom maye ko ci far force léegi lan moo cee am ci conséquence yi ba mooy sa doom du am mukk mukk bànneexu bànneexu sëy gis nga parfois day toog ci ay ay ay ay moroomam ñuy waxtaaneen bànneexu sëy mais yooyu yëpp bu ñu ko dee waxtaanee lu luy bees lay doon ci moom parce que moom du ko gis ci biir ci biir ci biir sëy xanaa xamoo ni sëy sëy sëy sëy ci gën a tuuti mhm. mooy bu ñu nee sëy sëyee ci gën a tuuti muy kaw lal ba merci beaucoup gis nga nee na xale bu góor bi dafa jàpp ni moom ñàkk koo bëgg gi mu ko ñàkk bëgg moom la ko xale bu góor bi ñàkk bëgg ba mhm. première guddi noos bi da ko wax ni ko bëggumaa am ak yow ak doom ana ana ana ana ana première guddi noos hmm? nga wax jabar ni ko bëggumaa am yow ak doom mooy kon man bëgguma la ñaareel ba mooy xale bu jigéen bi nee na bu dee sëy ak man damay gis ni bëgguma parce que doole ji muy def hmm? gis nga lu war a neex bu demee ba weex rek neexatul c'est-à-dire doole jam ci ay def force su gam ci ay def mel ni du xeex zaan du xeex nànk-nànk rek parfois jigéen ñi dañuy sëy jël ay mant lu weex lu war a neex nga def ci lu weex baaxul sëy du far force sëy du ay ay ay ay defante kon bu demee deme demee dem ba sëy bi moom yëgu ci boppam mais xale bu góor bi day mel ni en gu mu en en xale bu jigéen bi te sañu te fàq yaru dóor ko daf da ko koy da ko koy dóoree ci biir sëy da koy gaañ beneen bi mooy conséquence day dem ba xale bu jigéen bi nee na su ma dee sëy mhm. pour sentir tuuti bànneex ci moom mhm. mooy sama far ba ma bëgg laay xalaat mel ni ni mel ni moom laay sëyal waaw waaw nijaay dogguma la hmm. mais lii comme uh-huh. que bëgguñu cee am doom est-ce que ce serait mu bañ a sëy ak moom a sëkk ak moom mais parents yi ñu tas problème mooy parents yi nekkuñ ci biir gis nga xale xale yi bu ñu reewoon mhm. bu ñu reewoon te sañ-sañ wax kenn kenn kenn du leen maye. Mhm. mais d'accord ga da ngay xool ne d'accord ga ñu def te kenn te bëggante wuñ. Mhm. ba d'accord ci sëy bi loo leen loolu ba tey moo fa moo fa téye moo fa téye sëy bi moo fa téye sëy bi mais tey ngay sëy ak góor war a am ak moom bànneex bànneex ba nga cee am lu mu tuuti tuuti tuuti sa ex ba ngay xalaat ngay ngay ngay xalaat pour mën a am plaisir xanaa xamoo ni bëri na waxoon naa ko fi euh, jéem a sàmba xanaa xamoo ni bëri na ñoo xam ni. seen far yi seen dañuy amag ak dañuy am ak doom dañuy am ak doom seen aawo bi doom bu nduroog ñaareel ba nduroog ñaareel ba ñu naan da ko euh, kii nu mu tëddati da koo gelu fekk gelewu ko de waaja day sëy fii tey xalaat fee mm. day tax bu amee doom mu nduroog kooku liñ ciy wax rek moom mooy na yi di bàyyi xel yaa may dégg yi di bàyyi xel ci maye sa doom ci ku mu bëggul nañu bàyyi maye sa doom ci ku mu bëgg di nag dafa bëri conséquence ay jëkkër am far lay lay indi lay andi voilà parce que daf xamal la bu bari lay bëri na xale bu jigéen bu jooy ci biir néegu sëy mhm. ñàkk bëgg xale ñàkk bëgg jëkkër ja gis nga jooyam ya bu génnee kër ga xam nga fu mu jëm ca ka mu bëgg moo ko koy faral bien sûr ka mu bëgg nag bu amul xel da koy da koy profité ca woon ca ndaw sa dab bànneexu ndaw si soog a ñëw loolu mooy indi am jëkkër am far mhm. fekk parents